ترى لضيف كريم قد أجاد مقالا فهبوا على مقدار كفك مصطفى البرايا عتاء لا يخاف زوالا ففي كل حي قد قبمت بنعمة وإني كشاش قد أروم نوالا عليك صلاة الله ثم سلامه وتسمل أصحابا نبيه وآله macha allah macha allah Cheikh Ibrahim yaakaar naa am na solo ñëpp kontaan nañ xol yëpp sedd na. ndax li nga xamante ni moom nga jël jox ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bàyyeekoo si Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñu siy ndokkeel suñu yaay ajaratu Fat Samb bu imam Cheikh Ahmad Tidiane Cissé di ko ñaanal yàlla Adja Fat Samb ndax moo dalal groupe Futur Média ñaanal ko yàlla yàlla gën ko dëgëral yàlla gën ko sàmm yàlla gën ko aar yaayu seex yi yàlla làq ko fu yàq yàlla làq ko fu yàq yeggul si daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam oustaz Tamsir nga may ma rek ma nuyu sama gan gi nga xam ne sama turandoo la sama tooma la oustaz Hassan Seck moom itam di ko ñaanal yàlla di ko tatagal di ko dalal fi nga xam ne moom moo di si plateau télévision Futurs Médias oustaz Hassan ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu oustaz Hassan comme ni nga ko waxee sa wóllare sa euh, mën nañoo wax. ni ko tubaab yi waxee naataangoo ñoo bokk ci lu ñuy yëngu ba pare bokk ay tur far. macha allah léeg nga def ay propos ci télé bi wala rajo bi li ñuy woo ma ne ma ndax yaa wax nangam <laughs> man leen déedéet yéen TFM nga nekk ci man maa ngi dunya. <laughs> leen ziare lu bari di nuyu képp koo xam ne mu ngi seetaan télé bi ci jamono ji mhm. comme ni ko di nuyu tamit suñu wóllare bi Cheikh Tamsir moom suñu magu daara la woon. ñoo bokkoon di jàng waaye moo ñu jiitoon ci daara ja dëgg la. Euh, tette nañu lu bëri ca Égypte ci wàllu jàng mm, tax na sax ba fa mu jaaroon fa lañu jàng ndax moom ni mu amoon yitte ci xam-xam ak yooyu euh, di nuyu comme ni mu nuyoo woon ci gannaaw xalifa Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass mi nga xam ne moom mooy jiite képp ko aju ci njabootu Baay gi ci jamono ji mm-hmm. euh, di nuyu tamit imam Cheikh Ali Tidiane Ali Cissé comme ni ñu nuyoo Cheikh Mouhamadou Lamine Bachir di nuyu Cheikh Mouhamadul Mahi mi nga xam ne moom moo nekk porte parole dëkk bi. suñ leen nuyoo nuyu nañ képp koo xam ne ni yaa ngi aju ci li nga xam ne moom mooy pays bi. di nuyu tamit téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan fu ñu mën di nekk moo xam ci biir Sénégal leen ndokkeel itam li nga xam ne moom lañ nekk nii moom mooy feete li nga xam ne mooy yonente al Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci jamono ji nga xam ne nii ci la tombé woon ak li xam ne moo nekkoon juddoom te ñu nekk ci ron mbaaram Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne nii baaxoon na di ko dundal at bu jot ci bés bi nga xam ne ci la judd woon ak su bés ba dellusiwaatee itam nga xam ne dana ko dekkal mm-hmm. ñuy faral di wax gàmmu ak gàmmuwaat loolu moo indi turu bi mm-hmm. maanaam dañuy gàmmu bés bu njëkk ba la su dellusiwaatee ñu répété ko comme olof day wax waat defaat ñu ne gàmmu gàmmuwaat loolu moo indi tur gàmmuwaat bi mm-hmm. xam naa comme euh, Tamsir uh-huh. séeréer la moomay gën a xam lu ëpp ci loolu ndax baatab gàmmu dañuy wax ne ci séeréer la jóge <laughs> ñoom ñooy wax gàmmu jublu ci seen feet yooyu ñu daan def nga xam ne daan am lépp lu lu leen neex daal ci wàllu ceddo gi mhm. ndax daanañ fa gis boisson bu jaaroon ak bu jaaru di yoon mhm. jigéen yi jàmbur ñëw fa ak jëkkëri jàmbur waaye dañ daan wax gi gàmmu ku ci ñaaw de ku ci rafet xaw ma am nañu ci daan teg mooy wane ne seen feet la woon daal ñoom mhm. mais mag ñi nag bi ñu ñëwee bëgg lislaam dañoo wax ne ñoom dañuy tuubal baat booba maaraaj Abdoulaye dañoo wax nañ tuubal gàmm mooy bàyyi bàyyi tuubal ko moom mooy lañee doon def même nom bi la ñuy jël waaye nag na continue yu uute mooy ñun comme ci diine lislaam lañ nekk nañ def li lislaam bëgg mooy mag ñi daan daan jàng alxuraan ba fajar jot su ko defee ñu nettalwante si réyénte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme indee woon loolu moo indi gàmmu ak gàmmuwaat fii nii jërëjëf jërëjëf oustaz Hassan si nuyoo bu am solo boobu ñaanal la yàlla yow itam yàlla gën la dëgëral yàlla sàmm la si darajay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam Haj Tamsir dégg nga oustaz Hassan nuyoo na mm-hmm. fi ma bëggoon ñu ñëw fa rek mooy alaqa bi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu amoon na ko ak ndaw ñi ndax ku wax diine faw nga wax ndaw sa xel loolu mënul ñàkk faw sa xel dem si te ku xool Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu bi muy taalif daanaka amul ñaar fukki at demal si ruuxul adab bu amee ñaar fukki at si la yem nga dem tuuti mu am fanweeri at ak ñaar suñuy nopp mu taxawal gàmmu fanweeri at ak juróom-ñaar mu dem fi nga am ne moo di makkatal mu karam mu mel ni léppam la nga xamante ni daana def na ko rek si ba muy doon ndaw la ko def ba muy doon digg nekk si diggi dooleem mu mel ni loolu itam jàngat la war a doon pour ndaw ñi ne mag ñi ñu fiy gis ñëpp xaaruñu bu am yenn at yi daal di taxawal li ñuy taxawal waaye lépp ñu ngi ko tàmbalee si li nga xamante moom moo di ak ndaw buñ ko sañee waxe ne lu ñu jéggal ñu kàddu gi al alaqa allati tarbitu bayna Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu wa bàyyi ak ndaw ñi jërëjëf Cheikh ni euh, ñu ngi fay nuyoo Cheikh Hassan Seck sa turandoo sa naataango mm. di suñu wëllëre itam boo xam ne ni mu ko waxee yàlla ñu boole bu yàgg mm. ñu nekk ci toolu xam-xam bokk itam dëkk bi muy ko ku jàmbaare it ci wàllu xam-xam ku naw la mm. dëgg yàlla euh, di ko nuyu di ko dalal di ñaan yàlla yàlla yokk ko tawfiq yokk ko fayd ak fat te yàlla def itam barke ci lépp loo xam ne mi ngi ciy yëngatu sa wala eh, Eliman ngi Eliman ñaa ñu ngi koy nuyu ak waa Yoof yëpp suma ñaareelu dëkk ba maa ngi nuyu mbokki yëf yëpp Yoof yëpp eh, ni nga ko waxee Cheikh Ibrahima ak ndaw ñi loolu ba tey dafay nekk imtidaad rek ci mm. alaaqa yonant bi ci alaaqa Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ak yonant bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne xam nga siira yonant bi sallallahu alayhi wa sallama wala lu jiitu sax yonant bi ci yonant yi yàlla yónni woon gis nga ne seen état bu ndaw yàlla ci la profité jaarale ci ñoom lim jaarale ci ñoom bañ defar àddina mhm. yonant bi itam sallallahu alayhi wa sallama bi mu ñëwee nekk na ndaw lu mucc ayib ci màkka di mhm. daagu ci bedd màkka yi joxe la bon exemple mhm. ba waa màkka di ko woowee al amin nga gis ne kooku ci étape bi mu nekkee ndaw la ko def bi ñu koy yónni mu am 40 ans itam ba léegi génnagut âge boobu nga xam ne ci la ñuy wax shabaab mhm. ci la ko yàlla jox lislaam mu oo ci abou bakrin te moo ko magoon oo ci saydatuna khadija moom moo ci nekkoon nag saydna ali zayd ammar ak yaasir ak bilal ñooñ ñëpp ay jeunes lañu woon yi nga xam ne boo demee asma bint abi bakrin abdullah ibnu mhm. urayqit ak euh, abdullah ibnu abi bakrin ñi ñëpp ay ndaw lañu woon mhm. demeet boo xoolee saxaaba yonante bi sallallahu alayhi wa sallam équipe la woon ci ay ndaw yoo xam ne ñoom ñoo ko dëgëral ñoom ñoo ko dimbale kon bu Cheikh Ibrahima ñëwee mm. radiallahu taala anhu te waxoon ne man damay jéem a jaar fi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon yàlla dimbale ko itam mu teel a sotti ci xam-xam mm. ba ay meññitam ci xam-xam génn te boobu amagul vingt cinq ans mm. kon dañuy wane ne rek Cheikh Ibrahima itam faw mu jaar fi soppeem bi jaaroon mu am ay ñoo ko jege woon moom itam di ko dimbale danaa ci cité rek cheikh alhaaji abdoulahi al xalifa danaa ci cité cheikh ibrahima mahmoud Diop. nga xam ne bu ma tuddee ñooñu rek xam nga ne am na sañu jiitu ñooñu waaye bu ma tuddee ñooñu rek ñu nekk ay ay exemple yu jege te cheikh ibrahima waxoon bi muy ubbi maaxat bi ne maa ngi gërëm cheikh ibrahima mahmoud Diop maa ngi gërëm cheikh alhaaji abdoulahi Niass ndax ñaari ndaw lañ yoo xam ne dimbale nañ ma ci biir dimbale na ma ci biti teg ci Cheikh Mouhamad Nazir mi nga xam ne moo nekkoon mu diiru école bi te ñaar ñi ma wax nii ñoom ñoo ko mag kon nga gis ne Cheikh Ibrahima itam bi mu jógee dafa jox ndaw ñi ihtimaam bu mag daa di wax ci discours boobu mu mu tijjee école bi ne jàng leen xeeti xam-xam yépp jàng leen mbooleem fànn yi dem na ba ne leen sax benn fànn ci fànni xam-xam yi soo ko xamut day mel ni fànn yépp xamoo xamoo ci benn mm. ndax fànn yi dañuy mottalante boo seetloo ci ay bindam itam ruuxul adab boobu da nga gis muy soññi ndaw ñi ci lan lañ war a jàng mu ngi leen di soññi ci yan jikko lañ war a jikkowoo yan teggin lañ war a tegginoo seen digganteeg seen borom ak seen seen morom ak seen sëriñ boo seetloo ci xutba yi mu daan def ci gàmmu gi surtout am na xutba boo xam ne mi ngi ciy wax ne fa ayyuha shababa fa inni askurukum ala kalimatikum arraia wa ila al amam fa inna mustaqbala kulli watanin innama yatawaqafu ala shababihi lakin la ala kulli shabab walakin ala shababi almuthaqafin zawi al axlaaqi alxamidati walhimami alaaliya wa ama shababun bila axlaaqin fa ka garsin bila ilmin wala axlaaq fa ka garsin bila samar bàyyi mi ngi wax ne réew mu nekk rek ëllëgam mi ngi aju ci ay ndawam mu ne waaye du ndaw mu nekk nag la la réewam di aj ëllëgam ci moom mu ne waaye ndaw ñi nga xam ne dañoo am ay jikko yu rafet am itam ay itte yu kawe waaye am xam-xam itam nag mu ne waaye ndaw loo xam ne amul xam-xam amul jikko dafa mel ni rek meññ garab goo xam ne amut meññet kon nga gis ne Cheikh Ibrahima inaayam ci ndaw ñi inaaya bu bu bu la te itam formation bu dëgër la leen defal ubbi jàng boo xam ne mu ngi moo toll ni Mahad Alxaaji Abdoulaye Niass mm-hmm. teg ko ci daara yi nga xam ne ñoo fi nekkoon wax ne def ci modernise daaraay baayam alxaaji abdoulaye mi nga xam ne moom ci boppam ci daara jooju la génne loolu moo ko may mu am ay ndaw ñoo xam ne ñoo ŋànk daawaam boobu mu liggéeyal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jéggi frontières yi réew mi jéggi frontières yi Afrique ba jéggi frontière yi réew mi jéggi frontière Afrique kooku mooy l'universel l'international la solution moom la Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu oustaz Hassan da nga oustaz Tamsir fi nga xamante ni fa la ñu andi maanaam taxawaay bi nga xamante ni ndaw li moom la war a am digganteem ak boroomam waaye itam digganteem ak li nga xamante ni moom moo di fa mu bokk mu mel ni kon ndaw li wala jeune bi amul sañ-sañu def lu ko soob wala lu ko neex rawatina ka nga xamante ni da nga tënku ci li nga xamante moo di jàngale Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu waaw jërëjëf Cheikh Hassan xanaa di wax euh, jërëjëf euh, Oustaz Tamsir di wax amin ci ñaan yi ñaanal yàlla defal ko lu ëpp lim ñu ñaanal. amin amin waaye li nga euh, dese xam rek mooy ne benn teen la ñuy rootee ñu ñaar. moo tax mm. suñuy wax mën naa bañ a sore. Mm. te kenn ci la ñuy wax ak ñenn ñoo xam ne ñoom lañu defar ñu bokk xamandoor ñëpp. Mm. kon dafay mel ni mottaliwante lay nekk ci biir waxtaan bi. Cheikh Ibrahima dafa yàgg di wax ne. maanaam barkeeb dund mooy ndaw. barkeeb dund mooy ndaw. mooy ndaw waaw nit lu mu la rawee ci ndaw bu xasee passé jàll na bu dee da nekk jeune comme ni mu ko définiree maanaam bi nga demee ba mat mu kallaf xam li la war li waroon sa papa war a bu dee góor nga li waroon sa war a bu dee jigéen la mhm. foofu nga commencé ba ba ngay jeexalee jëm màggat mooy ndaw si di ménopause wala góor ga di egg fi nga xam ne nii mënatul dem comme ñu jegel ko ci jamono ji ki nga xam ne nii majeur na ba ba muy nekkee koo xam ne nii dafay nekk retraité diggante boobu mu ne moom lañ tuddee jeunesse mhm. ci ndaw nag ci ngay fàggu pour pour lu la yóbbu ci mag hmm. mu ne lépp loo defutoon ci sax ndaw hmm. bu xasee passé passé na la hmm. boo fi nekkee sa moroom ndaw nag mu nekk ci li nga xam ne moo ko nekkoo ci li la war mu koo jot ci jàng ci ndaw nga koy defee soo màggee xam-xam bi nekk fi ak yow liggéey itam da ngay góorgóorlu ci ndaw booy màgg li nga doon liggéey liggéey nga nekk di continuer di noppalu ba mu jeex jaamu yàlla itam ci ndaw nga koy tàmbalee màgg ak moom ndax man shabba ala shay'in shaaba shaaba alayhi hmm. li nga màggee moom ngay màggataale léegi nag ci loolu sax lislaam yonent alayhi salaatu wa salaam jàngal nañu ne ndaw lii jaamu yàlla su fekkee dafa dem ba mënatul moo tax muy ku feebar wala mu nekk ci tukki comme ni ko aaya ba waxee alima an sayakunu minkum marda wa axarun yadribuna fil ardi ak wa axarun yuqaatiluna fi sabilillah hmm. mooy kuy tukki wala mu feebar wala mu màggat mbaa mu am coono ba munta def jaamu yàlla bi mu doon def yàlla dafay wax malaaka ko bindal li nga xam ne moom la def bi mu wéree léegi nag yow bi nga wéree nekkoo woon di jaamu yàlla kon boo wéree dee perte nga. dëgg bi nga nekkee ndaw nekkoo woon di jaamu yàlla kon soo màggatee perte nga. Mm-hmm. léegi nag ki doon jaamu yàlla ci ndaw. yow ñëw ba nekk mag yow ngay doog a nekk mag pour rawlante ak moom mënatoo koo jot. Mhm. ki nekkoon ndaw di ut xam-xam tamit nga dem ba nekk mag da nga koy dabaatal waxuma doo am xam-xam waaye a la mu am. Mhm. ndax euh, nu mu tuddati xam-xam moom koo xas ba xam lii li doo ci suurati toujours yaa ngi bëgg di di dooleeku. Mhm. alal tamit la même chose kii liggéey bu xasee xam li mu am lan la respect bi respect bi mu koy jox. a ko bëgg a dabaatal yàlla mën na laa jox waaye nag. doo yem moom même su mm. fekkee am nga lu mu am sax mérite bi moom mooy kii sonn na ci waaye yàlla moo dogal loolu mm-hmm. ci buntu boobu mën nga cee duggee pour wane ne bàyyi da doon yittewoo ndaw ñi ni ko Tamsir waxee léegi mooy comme yenente àl Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay roy ci léppam te moom mooy nu mu tuddati waarisu Muhammad la mm. waaris Muhammad yi dafay am li nga xam ne moom mooy almawrus la amoon kuy mm-hmm. donn ki nga doon ne li mu yor moom nga yor ootee ndaw ñee ko topp ni ko waxee ñoom Aboubacar ak Omar ak ñoom Ousamat ibnu Zayd mm. bi yeneen bi di génn àddina jàng nga ci histoire ne 18 ans la am jox xare bu mu yóbbu Anas ibnu Malik mu ngi nekkoon ci loolu yonent Yàlla wa sallam mm. ans la am bu mu fay dugg nekk moom 9 mm. kon mooy kooku du wutoon mag ñoom ñëpp ay ndaw la ñoon Amr ibnu As doomam bu ñoo Abdullah ibnu Amr ñu daan bind yonent bi sallallahu alayhi xadis wax ne sax moo ëpp lu solo xale la woon àndaat ak loolu gis ne ndaw ñi ñoo fi nekk ñi doon àndal ñëpp ay ndaw lañ mu yitte woolee leen xam-xam ak li nga xam ne moom la ko Tamsir waxee woon léegi mhm. dafa am benn daje boo xam ne dafa amoon muy wax ak euh, xale yi comme ni ko Tamsir jàngale léegi ci biir euh, xutba bi mu leen di wax ne jamono ji ñu tool nii ndaw ñi ñoom ñoo war a yor li nga xam ne mooy responsabilité gàddu l'islam pour jëmale ko ca kaw mhm. mu tax bi mu daan dem ci ay daje di waxtaan ñu di ko oo muy waxtaan mu dem ba benn daje boo xam ne gis na ne xale yaa fa ëpp dafa Oustaz Baram Diop ne ko kaay mu ñëw mu ne ko waxal ak ñii ndax ndaw moo gën a mën a wax ak ay moroomu ndawam hmm. daan na wax ci wàllu woote mu ne ab sëriñ bu jógee fële ñëw di oo ñoo xam ne ña ngay liggéey moo leen kaay leen ngeen def lu baax hmm. dañuy xool ne kii bokkut ak ñun temps bu ko defee bu ñu ko toppee mën nañoo taal di li nu boo xam ne nii ci ñoom la bokk su defaroo bu ñëwee toog seen biir waxtu julli jot mu ne kaay leen ñu julli waxtu jàng jot mu ne kaay leen jàng waxtu jaamu yàlla jot mu ne kaay leen jaamu yàlla kaay leen kaay leen ñu def lu baax kaay leen ñu bàyyi lu bon mu ne danañ wax ne kii ñun ak moom benn lañ pourquoi pas ñu jéem a def ni moom loolu lu muy junj mooy xikma bi tax yàlla yónniwul malaaka ci ñun parce que bi bi bi yéefari di wax ne la unzila alayhi malak yàlla def ne walaw jaal naahu malakan la jaal naahu rajulan su ñu doon yónni malaaka dañu koy def mu nekk góor te malaaka yi duñu nekk góor bu ñu yónnee mbindeef comme yow muy nit di lekk di naan di xiif di mar di nelaw di yeewu su defee lu baax da nga mën def lu baax. Mhm. booy demee ci borom Ibnu Aasi daf lay wax ne li taxoon yeneen yi di am feebar bu leen di dal ak a wér mooy dafay tax jaamu yàlla bu feebar dalati nga ne ku ma gën. lii daloon na ko ma mën a koo muñee loolu léegi nag loolu nag jàngalee la moo xam ne nii Baay Ñas bi ñu ko xamee moom fexe na ba ndaw ñi mu ñu ko tam si waxee léegi ci gannaaw am na jeunesse bu dajee woon ak moom ca Koosi. yaa ngi wax léegi ci gannaaw la téere bi mu njëkk a taalif bi mu koy taalif ñaar fukki atam ak benn wala boog ñaar fukki atam ak ñett ak lu di xew mm-hmm. wax am na ci ndax bayit boobu ñuy wax wali bani ihdaa wa ashrina sana ba nekk ci téere ba mm-hmm. ñu ne bàyyi waxu ko moom sax wax na ko ci biir daf ne muctadiran inda dawil albaabi wa xaw la fatal andaabi mm-hmm. maa ngi jéggalu borom xel yu sell yi di euh, wax la waxamaane wa waxoon waxambaane woowu nag moom mooy Abdourahman al Akhdari bi nga xam ne moo taal téere al Akhdari ci téeram boo xam ne nii ci mantiq lay wax ci la mm-hmm. bindoon loola ndax bi mu koy bind loola amoon mm-hmm. léegi nag mu ne maa ngi àbbu bayit ba mu waxoon di wax ne comme ndaw la mu toll ci jamonoy ndaw wax wax jooju man it maa ngi àbbu bayit boobu mais moom wax na ne maanaam téere bi ci fekkee xool nañu atam ci atam hijri dafa lay jox 24 ans mm-hmm. ndax qad intahat nasihatul ixwaani bi ixtisaari mithlu ali ani fi aamil isnaini wal arbaina ma salaata achat miina mu ngi ko hmm. taalif ci 1342 1342 hijri kon année bi ci lay am maanaam téeméer at ndax ñu ngi nekk ci 1442 ren 1342 hmm. bi mu taalif téere bi loolu la bind. léegi nag bu dee 42 boobu dañoo xool moom mi nga juddoon 1318. wala 1320 ci beneen riwaaya bi bu mu ci mën doon ëpp na 21 ans. donc kon foofu mën nañu faa basé wu wax ne maanaam euh, Baay Ñas téere bi. mu ngi ci 20 20 20 ans yu jëm kaw bu mu koy taalif. waaye nag nekkul 21 ans yi nga xam ne mooy ñëw ci téere ba moom loolu la wax ndax ci suuf tuuti rek danga gis fi muy wax ne. Euh, Cheikh Ahmad Bamba waxoon na. ci lu mel noonu ndax boobu moom danaan def lu ñuy ooyee. honnêteté intellectuelle mooy booy jël waxu jàmbur mm. il faut nga wax ne diw sàngam moo ko wax pour bu ñu gisee ñu bañ wax ne diw moo ko wax amaana elmiya la ko arab di wax mm. maanaam su fekkee dangaa ngaa bind ne Xasan Seck moo bind lii su boobaa kuy lire dana xam ne Xasan na ko bind waaye su ma ñëwee rek wax nettali wax Xasan te waxuma ne Asana wax mm. kii bind day jàpp ne maa ko wax mu nettali loolu moom loolu doon éviter na moo tax muy indi lu mel noonu ba mu doon mooy bul gis ma nekk ndaw nga bañ a mokkal sama téere bi nekk tamit ci dëkk ajam yi ndax wax ju mel nii may wax ni Ahmadou Bamba waxoon na ci ne fa laysa yuksibu sawaada jismi balaadatal fata wa su alfahmi maanaam nekk ndaw wala nga nekk ku ñuul warta tax nga mën a ñàkk am xel ba wax hmm. loolu lu mu doon firi mooy mu ngi doon indi xam-xam ba war a ne am na keneen ko wax wax jooju noonu kon hmm. ci laa doon profiter pour leeralaale loolu hmm. ndax euh, bëri na ñuy répété di wax ne bàyyi bi muy wax wax jooju bi muy taalif bi ñaar fukki benn la am te moom bi mu bindee li mu bind ëpp na ñaar fukki at ak benn mm-hmm. kon lam bind nag ci la ñu sukkandiku mooy mën nañu jàpp ne kon 24 ans la ndax 1342 mm-hmm. su fekkee ci la ko bind am na sax ñuy wax ne jox na baayam téere bi te baayam li ñu wax mooy 1340 la génn àdduna léegi kon 1340 mooy bi muy taalif téere bi fekku fi baayam waaye lu mën xew la ci jamonoy ndaw la te ci la ko taalif yàggut dara mu taalifaat téere bi nga xam ne moom lañ doon teg léegi ci commencement bi avant ñuy ñuy ñuy tàmbali émission bi muy nuurul basar fi matxi sayyidil bachar nga xam ne da doon sax yénte àla sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci siira bi min alif ilaya téere boobu noonu bi mu koy taalif itam sorewul ak boobu maanaam ñaari at wala après boobu ci lay toll muy muy li ñuy defee gàmmu bu njëkk bi Hamzatul Busiri la ñuy jàng mais bu ñu ñëwee ci gàmmuwaat téereem boobu nga xam ne moom la def ñu def way ko ci laame euh, laamiye moom la ñuy moolidee loolu nag pour wane ne maanaam euh, ndaw la bu yittewoo woon ndaw waaye yittewoon itam ndaw ñi ci wàllu xam-xam ak wàllu jikko wàllu jàng doon na wax benn journaliste bu ko laajoon ne ko lan ngay jox euh, ak nu mu tuddati message jeunesse musulman bi nga xam ne ñu ngi nekk ci àdduna bi mm-hmm. mu ne ko ñoom dañoo war a xam ne jamono jii nii responsabilité bi ci ñoom la gàddu mooy film yi ñuy teg muy nekk yoo xam ne nii du lu baax mm-hmm. al aflaamu daaira wal majalaat majalaat al xalaa mooy film prono moo xam lu ñuy gis la wala lu ñuy liir la mm-hmm. ak li nga xam ne moom mooy istishraq mooy ak tadlil bi am ci réew yi nga xam ne mu ngi am tubaab yi teewoo ko pour réeral doomi jullit ñi mu ne hadaf bi yëpp moom mooy maanaam li leen tax a jóg mooy yàq ndawi jullit ñi ba nga xam ne ni ñoom duñ mën a itteewoo seen seen seen seen diine kon moom teeloon naa xam loolu ba tax mu préparé ay ndaw yoo xam ne ni mm-hmm. waxoon na ne am na ndaw yu nekk fii ma nekk nii buñ bëggee dem seen soxna sax dañ leen di forcer wala ñu jox leen ndigal ñu doog a dem ndax lañ yittewoo gu ñu yittewoo seen borom kon kooku mu ngi wan ne ndaw gi dafa war a yittewoo borom moom di ko jaamu jamono ju nekk te xam ne ni ndaw dafay wees te barkeb dund moom mooy ndaw lu la xas faat ci ndaw mënatoo ko dabaatal dund mooy ndaw lu la xas ba raw la si ndaw mënatoo ko dabaatal ndax noonu la borom bi subhaanahu wa taala bind itam li nga xamante ne moom moo di kaw na di kawnu bi wa hadihi hiya sunnatullahi fi l ard wa man nuammirhu nunakisu fi l xalqi afalaa yàqilun baax na afalaa tàqilun baax na yàlla ne na ku ma guddal sa fan rek am na lu nekk sa gannaaw mu ngi lay dàq te dana la jàpp muy tële te bés boo weesu rek loo fexe am maqaama wala ay pexe ba bés boobu dellu siwaat mu mel ni kon ndaw dafa nekk la nga xamante ni lu précieux la maanaam lu am importance la ndaw lu nekk boo si tolloo da nga war a xam li nga toll lan la ak ban taxawaay moom nga war a am yaa ngi tudd léegi ñi nga xamante ni moom moo di euh, euh, euh, nuurul basar fii marxi xayril bachar ñu si ziar bu baax waa daayira nuurul basar cheikh abdourahman daw fa tabarakallahu cheikh si imam ñu ngi koy nuyu bu baax ak waa nuurul basar yëpp suñu ñun nuurul basar lañ bokk waa jeex na tak nuurul basar lañ bokk xaj tamsiir fa tabaarakallaahu dégg nga euh, li nga xam ne moom la sama tooma indi di oustaz Hassan tey dañuy wax Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ba tey ñu ngi si fii ni taqi al shabab ñu ngi si cadre ndaw ñi ñu wax ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu alxal bàyyi la solution ndaw ñi li ñuy jànkonteel si ay jafe-jafe yëpp ñu mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñu am ko ñu ne bàyyi la solution lu tax ñu ne bàyyi la solution Euh, jërëjëf Cheikh Hassan bàyyi la solution slogan la boo xam ne ñu ngi koy yëkkati boobaak léegi mi ngi bëgg dure ma yaakaar ne nag képp koo xam ne tey yaa ngi aju ci Cheikh Ibrahima rek mën nga ci am sax firi bu bokk ak bi sa morom di di di am mais luñ luñ lu lu wundu rek mooy loo xam ne mën nañ koo continuer ci li Cheikh Hassan doon wax léegi mhm. ndax comme nee nañ ndaw moo amee yaakaari askan yi ëllëg te mu mel noonu ak ndaw ñi kon mën nañ wax ne solution baa ngi noonu dafa feeñ ci benn waxam fu mu naan yéen ndaw ñi fal taalamu anna amalana fiikum muallaqatun xatta tuqawimu maa awija fii baladina alxabibi wa diinina alxanif mu ne yéen ndaw ñi nangeen xam ne yaakaari addina bi mm. ci yéen la aju pour lan mu ne pour ngeen jubbanti li nga xam ne moom moo dëng ci suñu réew yi ci suñu réew mi nga xam ne réew muñ bëgg la boo ko yaatalee sax muy réewum lislaam mu ne ak suñ diine jooju nga xam ne mooy diine lislaam mu mel ni lépp loo xam ne nii gis nañ ne luñ war a defar la ci ñaar yi rek ma ngi doon responsabiliser ndaw ñi pour ñu xam loolu kon solution la parce que dafay xamal ndaw ñi seen responsabilité solution la parce que xam-xam mooy solution wahal wahal ummatun saadat halil ilmu fi l islaami illa faridatun bi xayri taallumi amul benn askan boo xam ne dana dem ba joti fi nga xam ne fa doon yootu lu dul ne ci xam-xam lay jaar waaye mu def ci ndaw ñi itam lu am solo te mooy am loo leen yar ci ñoom itte bu kawe parce que euh, wal himamil aaliya booy xool Cheikh Ibrahima comme ndaw mu juddoo tey bañ a seen nekk koo si sanc Medina Baay taxaw ne wal ummatu qasdi fihimu an asuuqahum ila hadratil barri rahimi ilahina li ma li ci xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mu ommat leen jëme ci péyeb yàlla bi ak fi muy wax ne wala anaalu raahatan li lil qalbi wa fi lbasitati yuaasa rabbi du ma am noflaayu xol fek am na kenn ku des ci kaw suuf rek kuy mooy yàlla loolu nga xam ne kon yitte bu kawe la boo xam ne mi ngi ci Cheikh Ibrahima Niass ndaw loo xam ne jàngee na ko ci moom danay danay dana yëkkateku ci wàllu wàllu itteem am na foo xam ne it Cheikh Ibrahima mi wax ne asal Mustafa yawman yajuudu bi nazratin tugassilu awzaari wa qalbiya tusminu wa inchaa qawaani li xamli xilaafatin mhm. li kay arfaa tawxida wal kullu muminu mhm. mu ne maa ngi mébét yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xool jëm ci man xool boo xam ne dana raxas suma raggi xol yi waaye dana dijjiloo suma xol bi dëgëral ko ba nga xam ne bu ko neexee sax mu dëgëral ma ba ma amee xilaafa googu nga xam ne moom la ñëpp di oot ut oote wala moom la ñëpp di ut ci ñi nga xam ne ay toppam lañ te Cheikh Xasan di ko junju léegi di wax ne Cheikh Ibrahima waaris muhammadi la mu ne li tax ma bëgg loolu mooy li koy arfaa tawxida pour ma yëkkati diin al islaam wal kullu muminu mën a màng ñëpp ñu jëm ci gëm yàlla gi nga xam ne moom mooy dimbale eh, doomu aadama pour mu juboo ak boroomam juboo ak moroomam li ma ci jeexalee ci wàllu woowu nga xam ne Baay mooy la solution hmm. yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa woon Eh, inna fi ljasadi mudratan ida salaha salaha aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa huwa wa hiya alqalb doomu aadama am na lumb bu ne ci moom wala suux bu ne ci yaramam su baaxee yaram bi yëpp baax su bonee yaram bi yëpp bon mu ne te loolu mooy xol Cheikh Ibrahima mi ngi bind benn taalubeem ne ko waalam anni walillahi alhamdu laysa li shughulun illa fi islaahi quluubi ashaabi alxatmi tijaani xatta law kaana allahu azina li fi tasarrufi la rafaatu himmati an tasarrufi fi gayri islaahi alquluub mu ne mu ngi xamal mboobu mu muqaddam boobu ne ko maa ngi lay xamal ne te maa ngi koy sante yàlla kat ne yàlla man awma benn itte lu dul rek jéem a defar xoli taalibe ba su ma yàlla joxoon kun fayakun duma ko jëfandikoo ci lu dul luy defar xol su fekkee nag ne xol mooy buuru yaram bi nga xam ne mamlaka boobu nga xam ne mooy mamlaka jëmmi doomu aadama pour mu baax muy ebal loxo yi ci lu baax di ebal bët yi ci lu baax di ebal nopp yi ci lu baax di ebal tànk yi ci lu baax xool mooy buur boobu ñu war a defar bu baaxee jëmm ji baax bu jëmm jooju baaxee famille ba mu nekk am chance pour baax su famille boobu baaxee société bi baax société baaxee addina bi baax kon bu ne bàyyi la solution la man mën naa dëgg rek ci islaahul qulub yim nekkee woon di def pour wane ne ku jaar foofu ak nit ñi yaa ngi jaar yaa ngi jéem a defar addina te solution àddina bi mooy defar doom aadama benn bi mën a defar société bi appareil Cheikh Hassan. jërëjëf oustaz Tamsir mu mel ni kon solution bi bi si jiitu mooy laabal xol yi bi si jiitu mooy bëggante. bi si jiitu mooy soppante luy soxor luy mbon luy kañaan ñu génne ko si xol yi ndax Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu loolu la njëkk posé comme solution si jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund te loolu cëslaay yi du fenn fu dul waxu sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oustaz Tamsir wax na ko léegi ala fil jasadi mudghatan ida saluhat saluha al jasadu kullu wa ida fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb mu mel ni xol moom moo di doomu aadama xol mooy moteur bi xol mooy li nga xamante ni moo tax ñu naan nit ndax sa xol su baaxul sa jikko mën naa yàqu te waykatu arab ba dafa waxoon ne innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhumu zahabu bu ñuy wax askan wu baax askan wu yiw askan wu sell jikko ju rafet moo tax ñu koy wax bu ñu demee ba jikko jooju nag gisatuñ ko sa askan woowu mën nañu wax ne askan woowu tur rekk la dese waaye dara desetu fa maanaam lay woon am ba di ruux ba di li nga xam ne moom moo di moteur ba ko doon dundal muy jikko ju rafet jooju wala jikko yu yiw yu sell yu baax yooyu la dañ na mel ni oustaz Hassan daanaka waxtu bi jéem ñu ño ñu ma koy xamal mu mel ni kon jeunesse bi am nañu responsabilité bu rëy tey jii nii responsabilité jeunesse bi lan la pour yow. waaw xam naa damay mujjee wala njëkkee fi Tamsir mujjee rek. Hmm. mooy bàyyi sa rajallahu anhu moom dafa dafa doon woote wiraasa ne Muhammadiya la maanaam lim am ci internet sallallahu alayhi wa la jóge doon na ko wax nag ne ñun waaye sunu Muhammadiyun lañu wal waarisul muhammadi nee na ayatuhu fi qalbihi wala fi sadrihi ku doon yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam sa sa kéemtaan du nekk lu nekk ci biti fii lay mm. nekk soo waxoon na fa nahnu saadatun mala saadatun malamatiya mm. sha'nuna satrul maqaamaat wa tarkul karaamaat mm. suñ mbir moom mooy dañuy nëbb maqaama tey bàyyi karaama lu ñu war defar moom mooy yittewoo xol yi fa ayatuna fi sudurina kama anna ayati ghayrina fil afaq yéen ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla di yónni wat yeneen yi ko jiitu woon yëpp joxoon na leen loo xam ne dafay tolloog nañ nekkaloon lu leen mën a gëmloo mm. mooy ne Nuux amoon na gaal bu ñu mën a gis Moussa amoon na yet bu ñu mën a gis mm. yeneen yàlla Souleymane am na ngelaw lu ko daan yóbbu mm. mu ne yooyu moo nekkoon seen i karaama seen mojza waaye man li ma yàlla jox waxyu la muy leer goo xam ne ni daf koo jaarale ci man ma yaakaar ne maa leen ëpp ñu ma mooy bu fekkee ne gaalu noox mëntuñ ko wane. mëntuñoo wane etu Moussa. tam nekkoon loo xam ne lu ñu mën a laal la mën koo gis. wax di wax yu gu jaar ci moom mënuñ koo wane mënuñ koo enregistré amut kaset amut dara mu des fi ba léegi mooy wane na kon mooy li ko yàlla jox mooy leer la guy continuer di dem. li ma lay waxlee foofu rek mooy euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama benn xadis bi doon jàngale. Mhm. di wax ne ashirku fi ummati akhfa min dabibi namlatin sam euh, zalma fi euh, ala saxaratin samma fi leylatin zalma mooy bi yàlla di wax wa maa yu'minu aktharuhum billahi illaa wa mushrikuuna euh, lii leeral loolu moom mooy ñi yàlla yónni woon ñu ay yónent li ñu yore woon dafa nekk luy lu ñu mën a gis mais moom bi mu ñëwee li am leer la loolu mooy lan mooy xelu doomu aadama ci boppam moom mooy lu tënku mënta gindi doomu aadama bi ndax mën naa gis lu baax moromam gis ne safaan la naka noonu itam moom ci boppam mën naa rafetlu tey dara suba mu ñaawlu ko hmm. li ngay soloo booy tëdd doo ko soloo boo yeewoo kon te yow kenn nit ki la léegi nag loolu lu koy indi moom mooy sa xel mi moom moom mënut a jamono bu nekk liy dox mu ne nag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di ay falasifa hmm. di leeral li nga xam ne mooy nit ñi xel lañ doon jëfandikoo maanaam philosophie philosophie hmm. nu mel mu ne dañoo mel ni ku nekk ci genn guddi mu lëndëm lamp tàkkul dara amul benn melentaan di dox ci benn montagne léegi nga bëgg a wane fi mu jaar Mm. te yoroo benn làmp mu ne kooku soit mu jub wala mu dëng man ngaa mm. làmb dajeeg moom mën ngaa làmb ñàkk dajeeg moom mu li leen leeral nag mu ne moom mooy làmp bu ñu am muy nit ngay xool melentaan bi muy dox nga ne ma nga nale loolu mm. mooy wax yu gi nga xam ne moom la yàlla wàcce woon ci moom macha allah mooy nag nuuru ilaahi leer yàlla gi nga xam ne moom la tam si junj woon ci gannaaw bi mu tàmbali ne la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak bàyyi ñaari jëmm ci benn ruux su fekkee nag leer googu moo wàcc ci moom mu di ko wàccewaat ci ay taalibeem ba nga xam ne ni ku nekk yow nga xam ne nii lu lii nekku fi su boobaa solution bi man foofu laa koy gisee mooy boo jàppee ne lépp lu am yàlla la lépp lu ñàkk am ci yow nga gis ne nii amut yàlla la su boobaa nga ngaa mucc ci am keneen koy jàpp ne moo ma def nangam wala moo ma xañ nangam wala boog ngay jéem a am keneen koy def safaan wala yu ni mel soo gëmee loolu gis ne moom mu fi nekkoon nekkoon defek ñu bëri ñoo xam ne uute nañoo moom waaye terewut mu ànd ak ñoom ci lañ nekk mooy gëm na ne li li yàlla di joxe moo koy joxe zalata kadduri wa zaaka aadamu mawhibatin waaxabaa ma ñu kurum la waxoon sama nëx nëxi jamono dañ na te mooy may gi gën a màgg yàlla di may yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp jërëjëf Cheikh Hassane lan ngay tàggoo waaw li may tàggoo rek moom mooy xanaa di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne ñu ngeen fi pour euh, bokk ñun li nga xam ne mooy fête bu mujj bi ñuy fête gàmmuwaat yéen ti alam salaam mën nañoo wax sax du lu mujj ndax jamono bu nekk ñun ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngat ak a jàngale di ñaan lépp loo xam ne ni yiw la woon buñ doon séentu yàlla boole ñu ko ñu ñu seetaan ñëpp lépp lu ñu fi doon wax lu ci dëpp ak njub yàlla ñu yàlla boole yóbbu lu ci dëpp ak safaan ñaan yàlla mu jégal ñu ko te xam ne gàtt ak àlli wala ak ñàkk fasaha jërëjëf Cheikh Hassan Oustaz Tamsir waxtaan bi euh, yegg se na fu ñu war a yekkee jataay bi gannaaw bu ñu la sante gërëm la ñaanal la yàlla gën la sàmm yaag Oustaz Hassan ak ñi fi jaar ñëpp ak ñi ñëw incha allah ñaanal ñëpp gàmmuwaatu jàmm lan ngay tàggatoo ak téléspectateur yu télévision Futur Média. waaw jërëjëf Cheikh Hassan li may tàggatoo mooy delloo si ci xel yi pour bàyyi la solution continuer nekk ci xel yi nekk ci xaatir yi ñu koy xalaat di ko daj ci luñ mën a teg suñ bët damay fàttali rek waxi Cheikh Ibrahima boo xam ne doy na pour àddina bi lépp lu fi problème réglé te mooy fi mu naan liya nazratun ila ibni aadama yastaxilu maaha al bugdu maa ngi xool jëm ci doomu aadama xool boo xam ne kenn du ko xool dara ba di ko bañ mhm. fi bàyyi waxee loolu bu ñuy seet loolu di ko topp du du ñu tarjamaal lu dul wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin looloo taxoon mu amee woon drapeau lislaam topp àddina bi dugal ci xeet yu baree baree bari te wax ne bugguma yëkkati ngannaay bugguma deret tuuru te loolu yëpp dafa nekk ay défi yoo xam ne mi ngi ci kanam àddina bi kon bu ñu delsee ci xool sa moroom gis sa bopp ci moom loolu dana doy pour solliciter lépp luy problème ci àddina bi di la gërëm yow Cheikh Hassan di gërëm waa TFM ba ca ka gën a nekk ci kaw di gërëm mbokki téléspectateurs yi di ñaan yàlla gàmm gi ñu mu door ci bisimillahi rahmaani rahim jeex ci alhamdulilahi rabbil alamin di gërëm suma mbokk suma xarit suma naataango Cheikh Hassan Seck meneen mi macha allah di kontaan ci waxtaan wi di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaxiru daawaana an alhamdulillah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñaan yooyu dégg nañ ko yàlla na ko yàlla nangu suñu borom sañ na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def wa ma zalika ala llahi bi aziz kon mbokk yi mi ngi noonu fii la ñu nekk Kaolack Medina Baye dëkk Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu gërëm bu baax xalif bi Cheikh Mouhamadul Mahi Niass yàlla may ko gudd fan ak wér ak ñawratu Mawlana Cheikh Ibrahim gi yëpp taala anhu waaye fa tabaarakallahu macha allah gërëm ñu ñu àndaloon si waxtaan bi Cheikh Ibrahima Niass mouvement euh, laayi biir askan wi ñaanal leen yàlla yàlla gën leen dëgëral yàlla mottali seen yéene Cheikh Ibrahim Nazir Niang moom itam jaar na fi wax fa dëgg fi lu ama am si ay zikr ñu koy ñaanal yàlla yàlla mooy ko gudd fan yàlla gën ko dëgëral yàlla gën ko sàmm euh, fa tabaarakallahu macha allah gërëm bu baax Serigne Mouhamadou Ndiaye rahma di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko dëgëral madame le maire Mariama Sarr moom itam ajaratu Faat Samb nee naa leen fa tabaarakallahu moo dalal groupe Futur Media moom itam yaayu seex yi foog ñu ñaanal ko yàlla yàlla gën ko dëgëral yàlla gën ko sàmm si darajay Seyduna Muhammad suñu yaay Faat Samb jooju sëriñ Abdoulaye Mountakha Niass fàttew ñu ko macha allah oustaz Pape Anne borom oo bi moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla léegi mu ñëw ànd ak ay ganam yàlla gën ko dëgëral Cheikh Abdourahmane Ndaw Al Karim ak suñu yaay Nafisatu Diop notaire doomam Busra ñaanal leen yàlla yàlla gën leen dëgëral taalibe Baay yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla gën leen dëgëral julliti yàlla yëpp di wax ne nag gannaaw ëllëg samedi incha allah woote bi daje bi place de l'Obélisque la ñëpp nañ fa ñëw teew takk seen ay masque def mesure barrières yi sol lu weex ngir wane ne Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léppam dafa leer amul dara lu lëndëm alquran léppam dafa leer amul dara lu waaye itam lislaam léppam dafa leer amul dara lu lëndëm ngir tontu ñi nga xam ne dañuy jóg ngir bëgg ŋàññ lislaam bëgg ko ñaawal bëgg ko tilimal te lislaam tilimul kon woote bi ña si ñëpp daje samedi lay doon 10 heures place de l'obélisque incha allah muy le 7 novembre bu ko kenn wute kuy ñëw solo lu weex tàll loolu moom mooy moo dord bi fa tabarakallahu gërëm Euh, colonel Mouhamadou Gadiaga sa Kaffrine nekk fële ca ministère des finances kon mbokk yi mu ngi noonu Cissé ñu ngi koy gërëm ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal si liggéey bi yëpp Diouf oustaz moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla mbay Diouf af Haj Malick Pape Silla Ablaye Laay Kalbi Ibrahima Ibou Cissé moom mooy borom Medina Baye Ibou Cissé Dia moom itam di ko ñaanal yàlla fatigable ak ñëpp ñoom Charles bàyyiwuñu kenn ku ñu fàtte rek jox nañ si sa nuyoo bi mu ngi noonu ñaanal waa kër ga xaaju Njaga Nduur di directeur télé bi Bouba Ndour directeur des programmes Haj Birane directeur groupe Futur Media ak ki nga xam ne moo nekk sa bopp ba nag di ki nga xam ne moom moo di Youssou Ndour yàlla gën ko dëgëral yàlla gën ko sàmm yàlla aar ko si darajay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tonton Saliou Mané fàttewuñu ko tonton Mara Dieng moom itam Adjara Oumou Ndiaye madame Ba yow itam ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla gën la sàmm Seyda Fat Buntu Diop fàttewuñu ko suñu yaay jooju ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér kon mbokk yi mi ngi noonu si kanam tuuti incha allah oustaz Pape Hann dana ñëw wuutunu si jataay ak yeneen i gan wax naa leen dara leen ump si gàmmuwaat bi fii ci Medina Baye fa tabarakallahu macha allah kon mbokk yi mi ngi noonu si kanam tuuti danañ dellu sawaat ak yéen si yeneen i jataay yeneen i tem ak Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu waaye itam ak soppam ba sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ilimaan ñaa fàttew ñu ko sa soppe xaj tamsir sa yoof ak waa yoof ñëpp ñu ngi leen di nuyu kon mbokk yi mu ngi noonu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jaani xarraqa qalbi fi amri dawman li sheyqi qibaa